السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله gis nga politique yi buñ leen tax toppee li ñu yàq day bare ndax li ñu lay wan ak fa ñu jëm du nekk benn moo tax foog ñu bàyyi leen xel te seet nu ñuy tërale te sunu mbokk gii nag kenn bañ ci xaj waaw maa ngi koy wax Cheikh Mbeng bii fekk doomu Karambake ñëw seetsi ko mujj na téléphoné waat sax ba dafaal ne ko nee leen sëriñ Moustapha dama ko nam ndax géej naa ko gis géej naa ko dégg bu ma mayoon sax xam naa gàmm gi mën naa am dafa xat waaye kon balaa gàmm gi diggante àllarba ak bu ma fi mënee recevoir ma ni ñaar yëpp dafa xat waaye bis bu yaatoo ñu mën a gisee waxtaan dinañu waxtaan waaye li ma koy njëkk a ñaan fii laa ko koy ñaane mooy détail yiñ koy dugguloo ak yu amul njariñ yiñ koy yi muy topp mu bàyyi ko parce que kilifa dafa am fooy toll doo def sa bopp comédien surtout boo amee ñu la yaakaar ndax benn nit dafa ñëw laaj ma mu ngi toog ci mbooloo mi Nima, dama dégg ci waxtaanu sëriñ kara mu ni da nga ko yónnee benn lettre boo xam ne lettre bi page bi dafa vite kenn bindu ca dar mais moom li nga bëggoon a wax moom xam na ko ma doon la laaj nag affaireu lettre boobu nu mu demee ma ko ah te ngaa kara moom mu wax la nu mu demee waaw ah, ma ko parce que man yëguma ko mu tax kilifa day fexe ba sàmm personnalité bañ a wax lu muy maye boppam waaw léppam mu teg ko ci teguwaay te bañ jaawale boppam ak waa mbett bi waaw loolu ci li ma koy ñaan la bokk duma ko wax ci ruq fii laa koy waxe ndax may naa ko moom it lu mu gis ci man lu ko neexul bu ko neexee mu taxaw ci public wax ko waaw parce que ñoo bokk lépp waaw sama doomu tànt la ñu bari sax xamuñu ko ci moom waaw ba tax na ko nag kilifa yi ci des yépp nag lay ñaan loolu dañu bàyyi kaf yi bàyyi yu ñàkk fayda yi bàyyi topp politique yi ñu di ñu foye waaw السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله